moo wax yéen ni parce que man bu doon man maay doyen sax gis nga Pam Ngañ su doon may moom damay am beneen invité bu mel toog moom Cheikh Yérim parce que aujourd'hui invité Cheikh Yérim c'est promouvoir la médiocrité mais il reste quand même sénégalais il a des idées médiocres des idées fausses Cheikh Yérim lépp lu mu fi wax ci lu jëm ci nu mu tuddati Sénégal mais ay kàcc la loolu lañ fi gis. mais am na ñu ko am nañu ko nañ leer de kàcc laa wax damaa rafetal wax. am nañu ko accordé <laughs> importance. et pourtant wax damaa rafetal wax et pourtant am nañu koy consulter ba tey et pourtant am na ku koy consulter ku koy consulter Amadou Ba moo koy consulter. <laughs> yërëm naa ko Amadou Ba bu amee keneen ko muy consulter na consulter keneen mais bu mu nekk Yérim Yérim lépp lu mu fi teg. ñun ñii fi nekkoon laa la wax doon fi def analyse politique teggi nañ ko te ñun suñu wax moom moom moom fi mu toll moo nekk ca kaw moom waxam mu ngi ci suuf. nee na tamit ku mel ni Diomaye ak Ousmane Sonko war nañu amaat coaching ngir ñu jàngal leen langay tubaab la kàllaamay tubaab bu baax. moom daa dee kàllaamay tubaab Ousmane Sonko lay jàngal kàllaamay tubaab et ñun est-ce que ñooñu dañoo soxla ñoom ñu dégg kàllaamay tubaab. ñun déjà ñu ngi fi bëgg a dégager tubaab bi lu suñu yoon ci kàllaamay tubaab ñun ñu ngi bëgg suñu école yi ñu am yeneen langue yu ñu koy jàngale suñu langue nationale ak li nga xam ne moom mooy anglais nga xam ne foo dugg ci àdduna bi moom la ñëpp di wax moom mu ñuy wax ay kàllaamay tubaab pend déggoo li ma la wax man fu ma toogee la ak laa fu ma neex laa koy placé man lijjantiwuma olay def nga erreur bii wala def nga erreur bi xam nga lan laa lijjanti li may wax ba xam teg naa ko ci xam-xam li may wax ba xam dëggu na li may wax ba xam yaa une véracité dans l'information loolu moom moo am solo bu nekkee ak yow sa la ak lay laa fi nga koy teg teg tegu na fa virgule gi yow na point euh, d'interrogation d'exclamation yi ñëw na te lépp li ngay wax dara du ci dëkk lépp ay kàcc la ban sens la am amul benn Yérim bu ñuy waxati ci nu mu tuddati lang doon doon politique gu Sénégal day dem toog teg la ay tànkam te su ma sañoon benn journaliste dootu ko invité ci plateau ndax du exemple pour suñuy doom ndax c'est un ndax du nit ku baax ndax du wàkkatu dëgg lépp lu mu fi defoon ay analyse politique ay feni neen la. sa gis-gis la et puis on respecte. Euh, comme li may wax tout le temps rek man moom ñaari journaliste bi ñuy joxante xalaat ba ci jël position. journaliste buy jàpp nag ni man dama war a jël position ci sa sa morom la muy wax ci yow. yaa ngi nax sa bopp Mamy Samb beneen mbir ci actualité bi comme bëgguloo wax ci ci kaawu Yérim ñu ñu nangul la ko euh, beneen ponk bi nga xamante ni certainement hmm. wax na la intéressé mooy jamono ji les médias yi problème yi ñuy dund gis nañu ni depuis un certain temps euh, lu jëm ci fisc beeg impôt bi dafa nekk problème ci ñenn ñi rawatina ci patron de presse yi euh, boo jëlee euh, kaawu ku mel ni MNF ñi ngi naan tamit manes naa ñàkk li nga xamante ni moom moo di chaîne am ku mel ni Abdoulaye Sylla tamit bokkoon ci bayeeru immédiat yi tamit moom de na traduire en justice ki nga xamante ni moo di Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop ci lu ni mel sax gis naa Mamadou Ibra Kane def na ci ab tweet nee na et ses nouveaux alliés cherchent à liquider le groupe immédiat abus de biens sociaux ah, abus, abus de biens sociaux dites-vous archifaux adepte des coups bas médiatiques votre projet ne passera pas a réagi Mamadou Ibra Kane ni kiy démb alxames ci ab page am euh, moom problème boobu déjà buñ ci taxawee ban jàngan nga ci am ndax certainement xam naa ne ku suivre actualité bi nga mm-hmm. euh, c'est vrai que coowal fan yi bi bari euh, la situation de, mun a Ndour Faye aussi j'ai eu quelques échos ce matin euh, par rapport ak euh, menace bi nga xam ne moom mooy pesé ci ndoddam mu ñàkk li nga xam ne moom mooy 7TV et ma réaction a été de dire que euh, Penda gis nga ñun nga xamante ne ñun ñooy journaliste yi kenn ku ci nekk ci ñun mën ngaa am ambition wu am ay projet de développement pour sa dëkk ubbi sa ay entreprise personnel tàmbali jël ay employés tàmbalee liggéey euh, dem ci dans la quête du savoir ànd ci ak euh, crédibilité ànd ci ak responsabilité bu lay jural ëllëg suba xëy na amaana nga mën a am groupe bu mag a mag boo xam ne day bokk ci groupe yi incontournable yi mais man est-ce que xam nga ne pend ni ma gëmee ne tabax brique par brique la noonu laa gëmee ne itam àdduna dara xëyul rekk sotti te euh, malheureusement c'est-à-dire man j'encourage plus nit koo xam ne da ngay dem ak sa ay fonds propres ak say fonds personnel wala boo dee am it nga am appui banque wala nga am appui état boo xam ne dafay jaar sur la voie légale mu leer na la ne Ouleymaane mi am na projet boppam mu ngi ubbi tàmbali na ci am néeg jóge na ci néeg dem na ci studio jóge ci studio laal na appartement jóge appartement laal kër jóge kër laal immeuble nga xam ne c'est de manière progressive selon résultat yi ngay liggéey selon crédibilité bi la ñuy ñii di seetaan di la jox ak selon également les accords commerciaux yi nga xam ne moom ngay am ak ndimbalu état pour nga mën a suqaliku on a vu des boîtes yoo xamante ne dañoo xëy rek juddu et puis xëy rek am doole qui sont derrière ces médias la nga xam ne dañuy xëy rek propulsé wu am benn doole bu kéemaane et comment se fait-il que média yooyu jotuñu fee sax am existence bu yàgg que ñu ngi commencé dund ay difficultés alors que normalement bu dee médias yu sérieux lañu war nañu mën a nekk sur une bonne pente mooy ne comprendre nañ ne il y a une crise bu fi nekk dans le secteur de la presse pourtant euh, Penda mm-hmm. gëm naa ni am na fi ay patron de presse yoo xamante ne ñu ngi yor seeni kër mm-hmm. di liggéey di góor góorlu mais ñoo ñu soxlawuñu leneen lu dul ku leen jàppale. Mm-hmm. d'accord nañu ne impôt ñëpp ko war a fay mais impôt yi itam war ngaa mën a dem si xub waxtaan nga xool nu la koy daggalee. nga koy fay tranquillement sans pour autant mu sonal la te du yàq dara ci sa liggéey gëm naa ni itam waaw gëm naa ni itam ne état war na mën a xëy na peut-être xool benn entreprise bu mel ni Sénégal 7 wala bu mel ni sans limite wala bu mel ni beneen chaîne ak beneen chaîne mu ne kat ñu ngi góorgóorlu ci li ñu mën charge yi diis na am nañu ay employés mais li ñuy liggéey si seen fonds bopp la ñu koy demee war naa leen mën a jàppale pour ñu dem xam nga luy problème bi mooy nga nekk journaliste yàlla nag bu ay politique yu làqu nekk ci sa ginnaaw di la financer xaalis ngay liggéey te kenn xamul financement bi fan la jóge ñu dem ba daanu nga daanu xalangu ànd ak ñoom ci lu ñu leen yéenewul parce que man mi di wax mais mun na du fay je la connais pas Alassane Samba Diop Mamadou Ibra Kane c'est des gens qui ont fait les beaux jours et les bons temps du groupe Futur Média ak ñeneen ñu ñu ànd ci ay collaborateur c'est ambitieux de leur part te délit d'ambition lu délit ci réew mi ku ci nekk war ngaa mën a am ambition wu ne man damaa bëgg am lu ma moomal sama bopp xam nga lan mooy problème bi problème bi mu ngi ci transparence bi problème bi mu ngi ci crédibilité journaliste bi problème bi mu ngi ci ki lay kan la pour mu set sax et bu coow amee yow maanaam nga mën cee raxas say loxo ba mu set mooy ni dès le départ bu la amee ku lay jàppale itam nañ xam ki lay jàppale kan la c'est-à-dire yow bul nangu nekk le sous couvert de qui que ce soit parce que bu fekkonte ne relation amu fa woon coow du am il y a anguille sous roche quel est le problème je ne le sais pas et j'espère que du leen foo xam ne dañuy tëj seen ay entreprise parce que sincèrement man Mamy Samb yéenewuma leen ko dama gëm na ña fa nekk di liggéey y a des professionnels fay daan seeni i doole ñoo xamante ne li ñuy dundee moom la ñu yoree seen i njaboot tey dañuy évoluer ak di contribuer ci li nga xam ne moom mooy évolution dëkk bi que cette évolution soit jugée positive ou négative c'est le monde de la presse chacun a son angle de traitement ak ku ci nekk ni ngay tojee sa bopp ji nax askan wi ñooy atte sa biir wax léegi jàpp nga ni waxtaan na am ci nekk xool peut-être naka ngay def ba fay li nga xamante ni loolu nga war a ameel état bu Sénégal am na ñu nga xamante ni état mu ngi leen amal tamit ba tey ñoom it tant que état fay leen peut-être ñoom it ñu fay seen i impôt dafay nekk ci ñoom ndax jàpp nga ni tamit war nañ ci war a mën a dem ba ku mel ni wal fajri ñu teg seen compte jamono bi nga xamante ni ñu ngi war a solde seen salaire non c'est-à-dire que wal fajri ak yeneen i groupe yëpp d'accord ma pour ñu teg seen ay compte yi war a mën a tax groupe de presse yi nga xam ne ñu ngi te jàpp jàpp ñu ci benn appui jàpp ñu ci benn soutien dañ leen war a jàppale. loolu laa gëm. dama gëm ni itam bu fekkente ne problème mu impôt la on doit le proposer des moratoires mais quand même fay impo wareef la. Hmm. dama gëm ni itam ñi nga xamante ne dëgg-dëgg dañuy daw di ñafe commencer par lu tuuti. di grandir nank-nank ñooñu on doit pas leur couper l'herbe sous les pieds on doit les permettre ñu mën a développer wu mën a suqaliku man xam nga lu ma bëggul et loolu moo yàq sunu métier bi je ne dis pas que c'est le cas de Maïmouna Ndour Faye ou c'est le cas du groupe e je parle de manière générale parce que de plus en plus yow Penda Badji il y a combien de journaux dans ce pays il y a plus de cinquante journaux hmm. ay journaux yoo xamante ne ñii da leen di gis ñu juddu ci benn période ñii da nga leen di liir xam ne dëgg-dëgg danoo am lu leen tax a jóg am nañu benn lignée boo xam ne foofu la ñu topp mais journaux yooyu yëpp kan moo leen journaux yooyu yëpp fan la ñu amee xaalis bu ñuy génnee ak di publier bien que jënduñu leen parce que il y a des journaux qui ne sont pas achetés Penda tu sais que le Sénégalais de plus en plus il ne tend plus vers le papier on est tous digitalisés maintenant comment il faut pour exister man mënuma comprendre ay groupe yoo xam ne ay jàmbaar lañu dañuy génn di ñafe di liggéeyal askan wi di faut di def la bonne information nga d'accord ak ñoom ou pas war nga leen au moins nangul seen professionnalisme ñooñu am ay problème pour dem am ay politique yoo xamante ne ñoo fi nekk bëgg gérer situation politique gérer situation médiatique et avec ça ñu bëgg ñun ñu am crédibilité crédibilité journaliste bi mu ngi ci nga am sañ-sañu ubbi sa gémmiñ wax saa yu la neexee sans pour autant nga ragal ni quand tu vas l'ouvrir une personne bi la injecté woon xaalis dina la wax ne la ah noppil de hmm. parce que ba nga waree wax xoolal fa ngay waxee ndax ba ba ba dara sottiwulee man maa la duut xaalis loolu taskatu xibaar bu ne war na ko bañ. Mhm. surtout boo yoree groupe de presse. donc këngal la ngir yàlla politique dafa am fu mu war a yam man dama siis ci sama liggéey ba dama gëm ne wàllub média ku xam média moo ko war a yore mais les mécanismes doivent être là pour ñu accompagner leen d'accord ma perte de batchi ku ñuy jël yenn accords commerciaux yi ak di jël yenn marché yi yenn convention yi di ko jox RTS d'accord la parce que RTS gëm naa ne am na budget fonctionnement bu ko état bi di jox. mais société privée yi fi nekk ñooñu la ñu war a jox yooyu les marchés pour que ñoom ñu mën a suqaliku loolay dëgg. d'accorduma itam ne benn nitu politique nekk ci ginnaaw moo lay financer yow nga yor sa groupe de presse mu mel nii saawaay li yàlla xam doy na. nga tabax ko mu kawee kawee kawee wala am benn luxe bi mais foo ko jëlee frère et puis naka nga def ba yow. en un laps de temps tu commences à couler même bu fekkente ne si pas lié à ça xel day ñaaw par rapport ak leneen ci des il y a des groupes qui sont là depuis des années Penda 2STV El Hadj Ndiaye il est là depuis de temps ak ab ful la doo ko dégg ci yenn yi mukk ku ko ko waxal it ku yàq ay waxam ni ko defar ak lu ko waay mënti waxal nag li ko ñor lay publier li ko ñor ak angle de traitement am lay respecter des médias Bougane Gueye <laughs> mais mu ngi fi depuis des années quoi qu'on puisse dire bu dee moom itam dafa am ñeneen ñu nekk ci suuf di ko duutub xaalisit it àla kulli aal buy kule mooy kuleel boppam c'est que coow li mooy maison de presse yi aussi souvent neexu ñoo jàppale ndax ñooy dem ba gasal seen bopp pàmb ba suuxal seen bopp ndax question d'intérêt bëgg gaaw a am yenn luxe yi bëgg gaaw a am yenn plateau yi bëgg gaaw a yegg ci benn niveau bi te loolu liggéey moo koy joxe dëgg la liggéey moo koy joxe pedd bat ji mhm. da ngay commencer ci benn puq su ndaw durable di dem le monde ne s'est pas fait en un jour. def comme Sénégal su fekkee da nga bëgg xëy rek bëgg rek ni jimet takk. ci studio lañ ko saa waay dinañ la ne yow xaalis bi ngay fonctionner foo ko jëlee. ne serait-ce ñu tudd immédiat tudd ay journaliste. dara tudd Abdoulaye Sylla rek c'est un problème. kon war nga maa <laughs> xas ñun. dëgg la. Hmm. mais xoolal gis nga toi tu es une battante valeureuse. ndax loo mënti tàmbali taabal bi la pend di tooñee boo ci góorgóorloo def ci sa jom def ci sa liggéey mhm. te bañ ku la ger te xam naa ne doon nangu it ku la ger ci yenn procédé yu dëppawul yoon mais bu ëllëgee d'ici quelques années si on te voit dans un truc comme Sénégal 7 ça ne va pas étonner les mhm. dañ naan ulay mu ngi ci procédure buy liggéey te bu boobaa wallahi alazim ku la laal di gis ñëpp ñoo xamante ne c'est des gens qui sont avides moo leen tax a jóg ne leen bàyyi leen ulay maane mii kat ngeen def lu metti parce que moom ci liggéeyam la nekk te amul dara lu muy reproché boppam. waaye yow bëgg xëy rek yenn tur yi rek. ñu di ko boole maanaam ci sa gestion ne serait-ce que le nom c'est un problème. Mm-hmm. boo demee ba yow benn sañ-sañ benn ligne bi mënoo koo am. journaliste bi xëy na ci ni ñu ko bëggee mooy dëgg-dëgg dans l'équilibre ça n'a rien à voir la chronique que nous faisons parce que loolu suñu point de vue bopp la ñuy joxe mais ku ci demoon bay gérer sa média da am noo war a tëddee saa waay c'est une règle d'or dans le journalisme mm-hmm. mais bu fekkee benn côté ngay féete yaa ngi dawal ci yenn oto yu dul jeex yaa ngi ci benn immeuble de luxe mais on se demandera fan nga ko jëlee ndax ñoom ñi fa ñu nekkoon di liggéey muy Youssou Ndour ku mu mënti doon dafa ramper ba am li mu am nii tey xëyul rek am benn propriété boo xamante ne saa waay li yàlla xam doy na nanu waxante dëgg buñ dee journaliste te neexu neexuñu deret te ñun bëgguñu ko ñu laal ndax ku ñu cof ñu jóg boo laalee journaliste rek ñun ñëpp suñu xol yi day tànk. Ousmane Sonko cof na keroog journaliste yi de ci concours général. non mais parce que li li mu wax c'est-à-dire que c'est une vérité vraie gis nga euh, euh, euh, Penda bu ñu bëggee résoudre le problème qu'on a ñun suñu bopp ñoo war a critique ci suñu bopp. ñu war a critique ci suñu fonctionnement man damay d'accord ne aujourd'hui l'État du Sénégal soutenez des groupe de presse qui sont sur les réseaux sociaux yi nga xam ne ñu ngi def liggéeyu yenn média yi traditionnels yi war a def te defuñu ko loolu lay dëgg mais moom it sortem bu nekk doo doo rate presse bi de bu ñu defee lu ñu war a wax bu leen war a wax dañ leen koy wax presse bi ñu yàlla duñu ñu ñun duñu yàlla duñu yonent benn bu ñu defee lu dul yoon dañ naan lu tegu leen ci yoon mais ndax war suñu non est-ce que dafay tiire ci yéen est-ce que du yéen c'est vous qui êtes susceptible benn yoon dégg nañu <laughs> non mais day wax ba keroog ñuy comprendre on doit pas être susceptible on doit être des gens yoo xam ne nous sommes ouverts aux critiques dama ne état bu Sénégal convention yi bloqué nañ ko bu nu saytoo li ñuy saytu ba pare nañu ubbi convention yi